ngeen mettre en place des unités transformation. voilà loolu parce que yéen seen programme xëy ndaw bi c' est décevant ça manque d' ambition leeral ndax ay petit métier kese la waaw dama lay leeral non xam nga soo nee petit métier ana maîtrisard bi lu ngeen koy indi waaw ana doctorant bi lu ngeen koy indi ñi nga xam ne dañu def ay haute étude te ba tey mënuñu am travail décent dama lay leeral mhm. ana maîtrisard bi am na si benn partie boo xam ne ñu ana maîtrisard bi am na si ñoo xam ne. ñooñu cadre lañ. waaw dama leen di leeral am na si ñoo xam ne ci programme xëy ndaw yi la amee seen business plan def seen projet entrepreneurial ñu financé leen si ay millions ba ñoom tey waxuma la wut emploi mais ñoom ñu ngi créé emploi loolu moo fi nekk réalité. ana ñooñu. ñooñu ñu ngi bénéficié wu. ci convention nationale état employeur parce que wax naa la sànq ma ne la convention nationale état employeur xam nga lan la. Mm-hmm. mooy Fatou Abdou bu xëy créé entreprise am ne man damaa bëgg recruter ay xale. ñu koy def damaa bëgg recruter ay xale. sama entreprise mu ngi nii. bëgg naa recruter ñoo xam ne dañoo am bac plus 5. bëgg naa recruter ñu am bac plus 3. bëgg naa recruter ay ponkol yu mag ay comptable ay gestionnaire waaye malheureusement. Mm. fi ma toll ci financement. mun naa leen recruter am naa capacité productive yu leen mën a téye mais aw ma capacité financière bu mu leen mën a fayee. état bi ne ko ah yow jàmbaar nga Fatou Abdou ñaata nga leen di fay mu ne ma ne amoon 1 million. vraiment dinaa jël samay maîtrisards état bi jox la un million nga recruter ay maîtrisards maîtrisards yi foofu la nekk ci programme xëy ndaw yi. Mhm. te c'est réalité qui est là. donc tey ku taxaw ne ñun on a créé que des emplois yoo xam ne loolu amul on a créé certes des emplois yoo xam ne man tuddee ma ko emploi yu ndaw mhm. mais dama ko tuddee emploi yu am njëriñ ci askan bi mhm. ndax ñu ana xaar emploi bi am ne mais parallèlement créé nañu aussi ay emploi pour ñi nga xam ne ay maîtrise lañu am ñi nga xam ne ay licence lañu am ak ay bac plus quelque chose lañu am. ci boobu nga xam ne quand même lu la mais les gens veulent aussi comprendre en quoi. voilà dañu yegsee ci produire lu mel ne. voilà c'est autre c'est que loolu man dama ci am plaisir pour tontu ci xam nga kooku dafa ma posé question ne ma waaye Pape tout ça là c'est bien beau voilà mais y a la politique industrielle bi nga xam ne nga war a développer aujourd'hui on doit parler d'industrie de transformation on doit parler ma ah yow xana yëgoo xew mu ne ma ma président Macky Sall am programme bu tudd agropole mo ngi nek ministère de l'industrie ma jox ko ci exemple ma agropole bi gëna développer tay so démé ñu ngi koy tabax Casamance makoy léral nak légui léegi bu ma koy leeral nag dama koy jox ay produits dafa am ay produits ñëwé produits non lignés manam produits yo xamné plus ou moins c'est des produits exotiques l'important là, yoo hein, c'est des produits exotiques yo xamné dans Afrique rek la am mais solo ba am ci solo ba am ci produit bi manam njëriñ bi am ci produit bi mais avec de petites transformations mais mais tay y a cela dix ans 15 ans 20 ans mais nebedaay mboum rek dañ ko doon def mu jeex. Ah. mais tay mais nebedaay bu ngi def ay exploits dans le monde. ma koy jox exemple yooyu mais xam nga gars yi nga xam ne ñoom lañu ñu ci opposition bi ñoom sensationnel moo leen neex. dañuy jël affaire yi pour saboter mais saboter bi ba dama ci kontaan parce que au moins ça a permis d'attirer l'attention des Sénégalais sur les efforts que état bi nekk di def à partir des propres instruments de l'État comme ay ITA par exemple nga xam ne ñoom dañuy cibler benn produit non ligné boo xam ne ñun dañu ko xaw a ñàkkal fayda tuuti mais di la ci démontrer que ne li ay affaire yu am solo mën ci am ba loolu le président Macky Sall tax mu dem. mais mais xam nga loolu dafa dafa wute ak li muy gis sur le terrain. maanaam nga dem Ziguinchor euh, dem rek dans le sud gis mango bi ni muy yàqoo foofu. nga gis meew bi déjà amaana sax dañu koy tuur parce que amuñu. Euh, fi nday fat doon waxee industrialisation. Mm-hmm. de nos produits aujourd'hui yi nga xamante ne mënoon na suqali Sénégal donc problème la boo xamante ne euh, dafa nekk handicap. pour liggéey pour ndaw yi nekk handicap également pour le développement et sur ah, le plan économique de nos pays ah, loolu également fan ngeen koy teg Fadou wax nga problème bi problème bi ñoo ko partagé on partage le problème mais nag yow li nga fàtte wax te man ma koy wax mooy solution bi li nga wax ni président moo la gën a xam loolu moo tax mu indi andi agropole par exemple mooy loolu moo andi débat andi na agropole léegi nag mën nañu wax ne benn waaye mos na ma posé question mu ne ma woy Pape tout ça là c'est beau mais tey 12 ans après wala 14 ans après ngeen di a di wax ay waxu industrialisation mais nañu waxan dëgg la politique industrielle Sénégal dafa amoon ay préalable yoo xam ne dañu ko doon régler Fatou mënoo wax industrie si réew moo xam régler woo problème courant parce que industrie lu utiliser si courant dafa am solo dëkk boo xam ne yow mënoo sax satisfaire ce courant wu kër mënoo ko satisfaire tey maa ngi ni Sénégal bi seen TV mu ngi ni dégg ma fi benn groupe bu tàkk mais Sénégal soo ko a 12 ans ci ginnaaw sooy def business plan télé li ngay njëkk a def mooy groupe de lay jar mais tey yaakaar groupe, mën nga def business plan la télévision rek business doo un groupe électrogène parce qu'au moins on a réglé le problème de l'électricité. Donc, il y avait des préalables que le président devait régler Moi, électricité d'abord. abord nous mën aller vers l'industrialisation parce qu'au moins on a augmenté nos capacités de production en termes d'électricité. Nous avons wax industrialisation te une ay pistes de production pour se produire depuis temps mais mën ko beaucoup de temps pour mën exporter ou nga mën ko andi Dakar wala mën dans les zones de consommation mais le président Maxal, Sall mu fait une merveille dans le monde rural en termes de plus de production et d'investissement. Nous fait def industrialisation ce améliorer le climat des affaires aujourd'hui le euh, euh, euh business classement ou business y président Maxal qui est top 10. Le Sénégal bokk 10 innovateurs le Sénégal bokk na etc. et le président Macky Sall et il a fait peut-être tout le temps pour mhm. régler ces problèmes là Moi, aujourd'hui dans son dernier quinquennat. Dans son dernier. qui vous avez été trahi vous avez été non dernier quinquennat non dernier quinquennat non non dernier mandat non dernier quinquennat moy bi ni ñu nek ni limu wax dafa ne. non parole de trahison non parole du trahison. non li wax dafa leer xam nga quinquennat bi mandat bi quinquennat dafa nekk cap sur l'industrialisation industrialisation nañu dem ci industrialisation parce que pour la première fois effectivement on peut mais ku budget ministère industrie xam ne yéen amu leen ambition benn programme ci industrialisation. parce que da nga jàpp ne kon industrie état mooy ñëw tabax ay usine du demee nonu mhm. suñu waxé agropole par exemple état mënu gungé wut ay privé ñu àndandoo def dara. waaye mën na dekk mais état mën na dekkil usines yi nga xamante ne ñoo nekk fu mu toll nii ci ay jafe-jafe. mais mu ngi koy def. <laughs> état mais dafa xaw a yéex mën na la état bu génnee dix milliards. pour accompagner ñi nga xam ne dañu bëgg augmenter seen capacité capacités productives mais amuñu moyen ñu fayee seen agent yi liggéey foofu mën na la état bi génne na dix milliards pour def ko su ma la waxee ne état bi génne na ay milliards jox ko 3FPT parce que am na ay sénégalais yoo xam ne voilà y entreprises xam catégorie des sénégalais qui ñu identifier nekk ay emplois pour voir, promouvoir formation formations am parce que l'État se prépare à ça. donc encore une fois j'ai dit une chose qui est très claire L'État a toutes les solutions par rapport à, la problématique de l'emploi. mais il faut qu'on assume ensemble que l'État va faire un seul. ay solo terminer. rapidement. Tu euh, vois toujours emploi y a un problème bu amon, mu Tu lu structurel ci y emploi une euh, euh, différence bi am. entre offre d'emploi ak li nga xam ne moom moo fi nekk comme capacité intellectuelle qui kap cap bu am capacité euh, euh, maanaam euh, xam-xam bu ñu war a am pour mu mën a wutal liggéey dafa amoon décalage fii xale yi li ñu doon jàng bu yàgg ba formation lu ci bëri nekkuloon li nga xam ne moom la économie bi doon générer en terme de possibilité d'emploi parce que formation professionnelle dañ xawoon na ñàkkal fayda Sénégal mais président Macky Sall bu mu ñëwee mais daf ci def ay jéego yu am solo tey xale yi ñu ngi formé wu sans sans difficulté mais métiers yi la gën a sensible métiers yi la gën a particulier métiers yi la gën a euh, euh, xaw a euh, kii yu ñu gënoon doyee dil par exemple tey crédibiliser nañ ko yaa ngi dégg yokk ko taaral ko ba xale yi ñu ngi koy def tey ñun plombier nañ leen posé question plombier ban formation ngay def doo def dara da ngay toog nekk benn xale ñu jël yóbbu métier nga ne man plombier la mais léegi da ngay am possibilité dem def plomberie jàng nga CM2 nga yam mm. mais dañ lay yóbbu école nga jang nga ne je suis quoi nga ne damaa am CAP en plomberie. d'accord loolu amul won bu yag ba. et cetera et cetera donc loolu aussi président Macky Sall mais malheureusement nak loolu. Mm. ay investissement de long terme la. Mm. loolu soko ko mm-hmm. pour nit ñi gis ko. fi ak ay jamono ci kanam lañ ko nit ñi di gis di xamné président bi kat ko amone vision la loolu le président Macky Sall def pour au moins adapter l'offre de travail ak la demande de travail.

mais yéen xamu leen ci dara en quelque sorte. mais xam nga Fatou man su ma taxawee ma ne la amul benn Sénégal bu am droit dem déposer candidature yow nga mën a taxaw xëy ne amul si droit li wone sa man su ma ko waxee pare di wëlbatiku waat naan benn Sénégalais bu tere nit mu dem déposer candidature wala taxaw ne dafa bëgg nekk candidat donc Idriss Seck su mu ne dafa bëgg def man du ci am benn commentaire boo xam dama ko ci def yaa ngi dégg maintenant li nga xam ne euh, euh, moom laa ci am rek mooy que moom ñun coalition bu ñu bokk. Mm. yaa ngi dégg mbiru Sénégal moo ñu gën a soxal mbiru élection fu mu toll nii. Ah. yaa ngi non non non loolu la mbiru Sénégal bien moo ñu a soxal mbiru élection. d'accord donc yaakaar naa nag euh, man de su ma nekkoon place am dinaa toogaat tuuti xaar. yaa ngi dégg ba heure bi jot ma soog a déposé sama candidature wala moo wax ne dama bëgg def candidat mais nag bon moom suñu kilifa la.

des projets rentables rentable euh, déposé pour entrepreneuriat déposé pour un financement mais euh, au bout de l'histoire dañuy ne que se retrouvent avec rien du tout du ñu une méthode peut-être pour financer est-ce que ça veut dire que euh, financer ils ont beaucoup de dossiers ba qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire Bah mais ça existe hein. ça effectivement des gens ramené ramener. ne dañuy dossier mais malheureusement dañu une suite heureuse mmh. mais moi aussi je vois d'autres personnes ils ont déposé, bah, pareil, suite mais, mais, pourquoi ah, non, non, non, non, parce que naturellement, c'est comme ça. L'offre est toujours euh, inférieure à la demande. C'est comme euh, euh, quelqu'un qui te dit, mais pourquoi n'y a beaucoup de programme Parce que chaque fois, on fixe un, nombre. Quand le président Maxal dit que oui, c'est l'objectif de 65 000 emplois pour 450 milliards, mais parce que le président, il sait que Sénégal ëpp na 65 000 mais il faut ñu fixer ko bien nombre mais ñooñu nous leen il faut pas qu'il perde espoir. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. gëm nañu politique du président Macky Sall di def ak priorité de nga xam ne la jox emploi. Mm-hmm. ak résultat yi nga xam ne xëy yi attention pouvoir public pour nous donner le ministère de la jeunesse le ministère de l'entrepreneuriat entrepreneuriat gën a dooleel entrepreneuriat. su ko defee ñi nga avons le moyen régler problème une partie des sénégalais nañ dox yokk seen doole doubler sen capacité ba ñeneen ñi nga xamné déposer déposé nañ te amuñ ñoom tam mun ci sen bop mais nak effectivement c'est une question très cruciale c'est une question très difficile oui. et dans tous les pays du monde da ngay gis problème bop voilà loolu c'est une réalité qui est là ñu ngi monsieur le le ministre il a bàyyi nga tàggatoo tok téléspectateurs voilà maa ngi leen di gëreumat encore une fois ci émission bi di am yaakaar ne euh, euh, émission bi amal na njëriñ askan bi voilà di wax rek né Sénégal ñun ñoko bok man lima gëm mooy amul Sénégal de gauche ak Sénégal de droite li ma gëm amul une histoire de gauche une histoire de droite amul ay sénégalais yoo xam ne ñoom ñoo doon Cheikh Amadou Bamba ñoom ñoo donnu Baye ñoom ñoo doon Lat Dior Ngoné Latyr ak yeneen sénégalais yoo xam ne ñoom ñoo donnu ce qu'il y a de pire dans notre histoire man góoma loolu man li ma gëm mooy ñun ñëpp on est des ku ci nekk nag am na ay convictions politique man mun naa d'accord nga ne man d'accorduma ak président Macky Sall nga taxaw wax ko avec force mais ngelawaay nangul ne am na keneen ku tudd Pape Malick Ndour boo xam ne moom dafa jàpp ne président Macky mu ngi liggéey liggéey bu rafet te tegu ko ci bakkanam tegu ko ci dara daf ko teg ci gis li muy def ba pare di ko wax dañu mhm. xam ne ñun li ñuy wax conviction moo tax ñu koy wax ñun ñoo gën a xam sànq wax naa ko que ne cette histoire là de pouvoir tôt ou dafay jeex mais ñun tant que ñu ngi fi di gëm ne président mu ngi liggéey dañ taxaw waxu xasante bi nag ak lu ñaaw mun na ñàkk ci langue politique bi mhm. nañu relever le niveau du débat nañu andiwaat le débat économique sur l'échiquier ñu ciy débattre président Macky Sall am na droit am mandat wala amul droit am mandat président Macky nañ ko faloon duñ ko fal. mais nañ ko jugé ci effort yi nga xam ne da koy def wala li nga xam ne jàpp nañ ne waroon na ko def defu ko su ko defee ñu teg loolu a réussir lii doo ko fi waxee mais ñun fulla ak fayda mat sëkk lañ koy waxee dañuy taxaw assumer li ñuy wax. lu ñu gëm dinañ ko mhm. wax avec force. lu ñu gëm dinañ ko wax avec conviction. Mhm. du ñàkk dina am sénégalais yoo xam ne dañ ciy gëm andak ñun mm. sénégalais yi gëmul nak andu ak ñun mais jour élection ñu dem voter kent lolu moy suma message maintenant ma ngi encore une fois féliciter les jeunes du Sénégal wax leen nañu jàpp dëgg la affaire bi ba légui mu ngi dëgër deug la la crise elle est mondiale mais gëm nañu né président Macky Sall am na yéene si ñoom te am nañu président bu baax bo xamné faté wu leen té chaque jour mu ngi ñaax pour jappalé leen té gëm nañu né inshallah allah seen solution dinañ ko am ci année yi ñu jëm ndax président Macky Sall quand même gëm